ba tey mu jàll ci yi nga xam ne asaka waru ca daldi ne waxasanun ak lem faakixatun ak payteef payteef wax yin wolof la waaye moom lañu wax fruit ci tubaab yi maanaam xeeti toom yi niki pomme orange mandarine ak yu demee noonu maxal xudari ànd ak way tooy yi wala nga ne lujum yi mooy yi nga xam ne moom la ñuy toggaale ci ñam yi xeet lujum yooyu le kon xeetu lem asaka waru ci bu dee ci yoonu Maalik xeeti payteef yi muy fruit yi asaka waru ci xeetu lujum ba tey noonu idd ngir xëye moom asaka mimma day tukkee ci la nga xam ne yut daxaru def na ko denc fil muqtaar ci lañuy ñuy dunde waaw nee na asaka ci lañ koy génnee maanaam la ñu génnee day doon loo xam ne des koy mën denc di ko dunde waaye loo xam ne nii mënees koo denc di ko dunde asaka du ca war te yii mu wax ni nag moom lem ak payteef ak lujum bokkul ci yi nga xam des na ko denc di ko dunde wala wa yaxsibu dina amee an nisaabu nisaab min sin fay ni ci yaari xeet ka joxe bi niki wurus ak fiidatin ak xaalis min xëy nin ci kee daa wax ne loo xam ne dafa def wenn xeet wëlbati ko ci biir nag defaat ñaari qualité wala ay qualité su des na boole qualité yooyee niki xam nga boo nee rek mooy xeet wi da wëlbati ko def ñaari qualité nag am wurus am xaalis ak yem ci bëgg a teg su boobaa des na boole wurus ak xaalis nga xam ne boo amoon tey fukki dinaar muy genn wàllu nisaa bi wurus nga am téeméeri dërëm ci yoon muy genn wàllu nisaa bi xaalis su boobaa kon asaka danay war bu la soobee nag nga génne asaka jëpp ci wurus muy genn wàllu dinaar bu la soobee nga génne itam ci xaalis juróomi dërëm su ko defee bu la neexee itam nag nga seet la war a génn ci wurus nga génne ko la war a génn ci xaalis nga génne ko waaye comme la ci neex daal nga seet la nga war a génne lépp nga génne ko ci benn qualité ba ba ca nga bañ caa génne dara nga xam ne bee yóbbaale na moroom ma ba tey wadda anu wadda anu xar maanaam xar istihaabun ak àndoo la lil ma asiñal bay wa buxtun buxtu ba tey istihaabun ak àndoo la lil xiraabi ñeel gëleemi xiraabi yi wa xarul nag yi nga xam ne moom nga meen file istihaabun ak àndoo la ilal jawaa miis yi jëm ci nag yi jawaa miis ya maanaam dafa wax ne xar ak bëy dañ koy jàppe wenn xeet muy ñaari qualité ba noppi di wenn xeet nga xam des na boole xar ak bëy ci asaka boole gi rek mooy boo amoon tey ñaar fukki xar am ñaar fukki bëy dañuy jàpp ne loolu mat na nisaab duñ bàyyi ba nga am ci xar ñeen fukk am ci bay ñeen fukk déedéet bu amee ci kee fukk am ci kee fukk dañuy jàpp ni am nga nisaab ju mat loolu rek mooy àndoo gi muy wax ak boole gi muy wax ba tey xiraab mooy gëléem yi nga miin fii ci réew mi buxtu nag yeneen xeeti gëléem la yoo xam ne miinoo leen wuute nañoo ak xiraab waaye des na leen boole ci asaka boole gi mooy tey boo amoon ñaari xiraab muy gëléem yi nga miin ci réew mi am yetti buxtu muy gëléem yi buxtu yooyu nga am ci yett kon day nekk juróom dañ koy jàpp juróom ab gàtt daal lay war baqar mooy nag yi nga miin fii ci réew mi jawaamis ay nag la yoo xam ne miinoo leen waaye ba tey soo amoon ci baqar ñaar fukk am ci jawaamis fukk dañ koy boole jàpp ni am nga fanweer rek asaka daal lay war alxamxu bele yu saaru def na ko mu li shahir yi jëm ci shahir li suut ak jëm ci suut yenn xeeti bopp yi mu di wax ne leen di boole ci asaka boole gi mooy boo amee ca am ca te buñ ko seetee mën misaal asaka war la ki boo bàyyee xamhu ak shahir ak sult te mat juróom benn barigo asaka daal lay war kazaalika ni alxataan yi giiri sa bi giiri sa bi mel ni mat nañ juróom ñaar waaye daaw leen boole soo bàyyee sëñee ak bële ak bële te buñ boolee da nga am ci bu ne li muy boole ñoom ñëpp daañu mat nisaab kon asaka war la wa zabiib ak reseñ reseñ daa bari ay xeet waaye moom it des na boole ay xeetam soo bayee reseñ bee ak bële bële ñu seet ba ci kaw boo leen boolee ci seet kenn ku nekk nam toll su boobaa mate nisaab asaka war la ko simaaru ak meññet yi nga meññet yi bu dee tàndarma daa bari loolu ay xeet waaye boo dee fa ñuy bay tàndarma xeet yi li yëm bari gam bari yéemu na waaye des neen boole boole gi rek mooy bi seetee la am ci xeet wale ak bële ak bële te mat nisaab asaka war la buñ ber kenn ku ne ba mat nisaab boppam masrifuha joxeyukaayu asaka al faqiru muy aji ñàkk wal miskin ak miskin te tàmbulee wax ñi nga xam ne ñoom war a jox asaka tàmbalee ci faqir ak miskin faqir ak miskin léeg-léeg sax dañuy wute ci primi naa kan moo ci gën a ñàkk ci ñoom ñaar waaye li gën a siiw ci prime waa Malik moom mooy alfaqir mooy koo xam ne am na dara waaye lam am doo ko dunde ci at ma loolu nag moom yaatu na ci suñu réew mi ñu ci bëree bëri amuñu leen doy dunde ci at ma miskin nag mooy koo xam ne amul dara dara mbaa amul soxlu mat dund tey tey tey moom itam moo gën a leer ci ñoom ñaari baat ku ci nekk ci ñoom ñaar nag daañu ko jox asaka ci kaw fekk mu ngi as gor di ab julit dana ko wax ci kanam dana sart góor gi jullit bi ci kanam xaasin ak aji xare ji maanaam ko jihaar ci yoonu yàlla doonte woomaloon na it mënees na ko jox asaka du jëm ca jihaar ja muy jihaar waxit xon ak goreel goreel googu mooy nga fekk jaam boo xam ne jullit la nga jënd ko ci alali asaka ji mu daal di gore waaye su goree nag yow doo moom kilifteef ga ndax alal ji nga ko jënde alali yàlla ndax asaka la aamilan ak aju liggéey ci asaka ji aju ci asaka ji mooy lu mel ne ki koy laaji ak ki koy dajale di ko sàmm hmm. ak ki koy tasaare ñooñu lañ jublu ci aju liggéey ji jubluwuñ ci dong bi nga xam ne day liggéeyal sëñ ba ca tool ba kooku taxul mu yeyoo asaka bu fekkee lor na ñu jox ko ci kaw loru ga rek waaye kenn du ko jox ci kaw ne moo doon bay tool ba kon asaka ji ci ci war génn moo ko war déedéet loolu njuumte la wa madi nga boole ak ku ñu lebal koo xam dafa gàddu ay bor yoo xam ne toog ba ak ne rek naa lebaleb daañu ma jox asaka taxutoon dafa leboon ci loo xam ne lu la lu far la ci dundum boppam mbaa lu mën a faye kooku daañu ko mën a jox asaka mu allaful xalbi ak ku ñu miinal ab xol ku ñu ab xol mooy la laay jay wax wal mu wallafati qulubuhum am na ñaari prix benn bi mooy kii door a ci lislaam ñu ngi koy jox ndax xolam gën cee dëgër loolu moom ba tey nee nañu daañu ko wéyal ndax sax daañu gis ko tuub ay bokkam génne ko jàmm ko bu ci des nag mooy jox lislaam koo xam ne tuubut ndax bëgg mu tuub mel ni loolu nag moom nee nañu dañ koy bàyyi léegi ndax lislaam war naa weesu ñu koy campagneal wa muxtaajun ak aji aajowoo xaribun ku di ab doxandéem wa bni sabili jëlaay ji wax moo tombeeg loolu maanaam koo xam ne day ab doxandéem bu tag ci béréb amul lu ko tàgganti kooku mënees na koo jox asaka waaye nag su fekkee am nag ko mën a lebal ba mu ñibbi te bu ñibbee la mu koy fayee dana ko fekk ndax amoon na ko mu nekk fa kon kooku lorootut waaye nag bu fekkee ne am nag ko mën lebal waaye bu demee itam amul lu mu koy fayee da koy làqal ci rek kooku ba tey loroon na mënees na koo jox asaka axraaru lislaamin gori lislaam maanaam dañuy sar ci ka ñuy jox moo xam faqir la moo xam miskin la na doon gor te di ab jullit ndax dañuy jàpp ne bu doonee jaam ab sang moo war a gàddu ay mbiram kon kooku loruwut bu doonee ab yéefar asaka ak jaamu yàlla la te warisu koo jox ab yéefar wala mu yoqbal déefal nangu itam muribun aji sippaloo maanaam ki ngay jox asaka booy nattable ba xam melo yi nga di ko melo yi tax nga di ko jox wér na ci moom déet kon da nga bàyyi bu wóorlu ko niki bu fekkee day laaj asaka wax ni moom faqir laa te gisam ne amoon na alal te gisuñu alal ji fu mu tàggoog moom kon des ko jox lu may ñu wóorlu ni alal jooje dafa tàggoog moom kon melo yi tax nga di ko bëgg a jox asaka daal na wóor bu fekkee wóorut nga bàyyi ko dem jox ko wóor ndax ñeewa asaka moom bari na fas nun li ab dog la zakatul fitri muurum koor saaxun benn saax lay doon saax na tollale yom dafa wute am nañu koy tollale ñaari kilo boobu boobu na moom siiw na am nañu wax ñaari kilo ak genn wàll peut-être bari na ñuy defe loolu am na sax ñu wax lu matul ñaari kilo waaye daal mel moom li wax ni moom la boo defoon sa ñaari loxo ba mu fees te bënkoo ko tàll woo ko fekk say loxo dafa digg dóomu rek boo ko sottee daal xanaa ñeenti yoon dee naa warta mën a ñaari kilo ciw nag waa Makka ñoom daañu dem sax ba wax ñetti kilo benn yoon daal waaye nag loolu mënu joxe benn bopp bu ne buñ nee saa moom moom koor benn bopp bu ne loolu lay doon boo nee mooy ñaari kilo bu dee yàgg sa soxna ngay def ñeenti kilo boo ci boole sa doom mu juróom benn kilo moo tax mu ne wata ji di dana war xan muslimi walis ab julit waman ak képp koo xam ne tuli ba sàkkoof na ko biris xiixi ci wërsëgam julit bi ak ku yoon ne ku dundal ko moo ko ma lu ko war a génneel li nga war a dundal ci yoon nag sañoo ko bañ nag bu jigéen ba keneen koy may jëkkër ba jëbbal ko jëkkër ja ak sa doom bu góor ba keneen mu doon magum magum jëm mën a liggéey amul genn laagu koy te mën a liggéey ak sa ndey ak sa baay bu fekkee dañoo ñàkk yàlla war a dundal te yow nga am yàlla war a dundal te am ko te ñoom ñàkk ak jamono yi jaam amee jaam ñoo war a dundal ci yoon ñooñu rek ñu war ñu war a génn asaka koo xam yaa koy dundal waaye sa coobare rek la nit sa mag mbaa sa rak mbaa sa leen waaye du la war moo tax mu ne wa man ak koo xam tulli ba sàkkoof na ko bëri ci war sugam min muslimin tam jullit waaw képp ko war a dundal jullit ñi rek yaa ko war a dundal mburum koor bi jubli xaysul xaw mi ci la ëpp ci dundub nit ña maanaam la ëpp ci la ñu dunde foofa ci xeeti pepp yooyu ci lañ koy génne moo xam pepp mi day bole wala muy loros mbaa mboq mbaa suuna ak saaño mbaa ceeb ba ci tànn maa reseñ sax daañu ko ci génne ndax sañes ñu ko génne ci wuru sa xaalis ni ko ñenn ñi waxe léegi ngir ni rek ki koy jox da koy dem jaayiwaat wax ji gën a wóor mooy ñu génne ko ci pepp ak la ñu dunde foofu te bañ koo génne ci wurus baa xaalis ndax ba ñu koy dëgal booba wurus ak xaalis bari woon na waaye taxutoon ñu wax moom ñu génne ko ci yooya kon génne ko ci jëmm yi li ko génne loo muy xeet lu ñu dunde foofu moo gën tey nee nañu bu dee fu mel ne suñu nga xam ne dafa mel ne ceeb lañ fi ëpp dunde xëy na dugub des na ko fi jëfandikoo waaye daa mel ne ceeb bi lañ ko fi moom lañ fi ëpp dunde kon bu fekkee ne mën nga ceeb daa mel ne kon nga def ko mooy gën a wóor te bañ a def dugub su fekkee tëlee ceeb nag moo tax nga def dugub moom dana baax waaye daal mel na ne su fekkee ne mën nga yaar yëpp moom ceeb nga war a def ndax mel na ne ceeb moo ëpp ci dunde gi te moo ëpp qualité maanaam te moo ëpp daraja mu ne nag li tux ni ngir mu doylu loo moom muurum koor wala li tux ni ngir nga doylu loo yow mi koy joxe xorran gor musliman suñu ab jullit fil mi ca bis ba dafa wax ni muurum koor li tax ñu bëgg ñu joxe ko ma li tax yonent bi santaane ko mooy dañoo bëgg buñ ko joxee ku loru ki du jar bis boobee mu jóg di wëreelu ji di yelwaan ba dara maanaam muurum koor mi koy jox dana doy ko doy ci bis boobee mu daal di ko jullit ñi bisub mbégte bi muy bisub korité bi du jóg di wëndeelu di yelwaan di wut lu mu am foofu nag fa la jeexale lu ci mbirum asaka wax na asaka wax murum koor bu jàll su ci beneen ponk ci lislaam te mooy woor ci boppam kitaabu siyaami lii mooy téereb koor siyaamu shahri ramadaana woor weeru ramadaan wajaba war na dafa wax ne weeru koor yu muy moom woor ko farata la ponk la ci lislaam ca ka war saw mun koor nag nu ba soppeef na ko wala nga ne fi rajab bi nekk na ci rajab shahbaan ak shahbaan sawmun koor nu di ba goog soppeef na ko dafa wax ni yaari weer yi muy baraxlu muy shahbaan ak rajab muy ndeyu koor yooyu yaar sopp nañ bokk ko mënee nga woor lépp lépp lépp nga xam doo dog benn fan bu fekkee ne nag naroo ko def lépp lépp bu dee ci weeru rajab sopp nañ bis ba ci nekk ñaar fukkeel ak juróom-ñaar ñu koy wooyee kasu rajab bu dee baraxlu itam bu fekkee doo def lépp daañu sopp bis ba ci nekk fukkeel ak juróom muy bis ba mu xaajee waaw tatis yi xijjatin nekki juróom-ñeenti nekki juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski tatis yi xijjatin dañoo sopp bu teraw rek nga tàmbalee woor bañ ne suba lu fukkeel muy bisub tabaski bi muy bañ ne suba lu fukkeel nga daal nga door a bàyyi waaye lañ ci gën a taamu juróom-ñeenti fan yooyu nag mooy bis ba nekk juróom-ñetteel ñu koy tudd yow mut tarwiyati ak bis bu nekk juróom-ñeenteel ñu koy tuddee yow mu xarafata bisub xarafa bisu xarafa boobu nag moom dañ koo sopp lool lool moo tax mu naa wa axraara wante nag al axiru aji mujj ja maanaam ko mujj ci juróom-ñeentee mooy bisu arafa mooy buñ nee suba la tabaski bis boobu nag doo seet bis ba ko waa màkka ñoom jàpp dangay seet rek fa nga nekk ba weer wa teroo ba mu doon juróom-ñeenteel rek juróom-ñeenteel boobe mooy bisu arafa ci yow soo dee woor moom ngay woor kazaliki ay nag ñu fàttalee ne bu fekkee da ngaa aj moom bu fekkee da ngay aj màkka duñ sopp ci yow nga woor bésub arafa boobu ndax dañuy bañ nga néew doole ba na nga war a taxawee ci bis ba ca foofa ci aj ga doo ko mën kazaliki ni almuharram weeru tam xarit weeru tam xarit moo njëkk ci atum lislaam moom sopp nañ lépp lépp nga woor ko moom it wa ahraara wante nag alxaashiru aju fukkeel ja aju bu fekkee doo woor weer wépp itam lañ ci gën a sopp kon mooy kon na nga woor bisub fukkeel ba ak sax bisub juróom-ñeenteel ba boo ko ci mënee boole moo gën ak bisub ñetteel ba kon jàppal ne weeru tam xarit yañ ci gën a fonk ba ci gën a bañ ci gën fonk dëgg dëgg moom mooy fukkeel ba waaye juróom-ñeenteel ba it noonu la ñetteel ba itam noon la wa yasbutu dana saxe achahru weer wa bi ruyatul hilaali ci gisub terute la aw bi talaasina wala ci fanweer xobaylan ci ak jëkk fii ci ak mat li nga xamee ne ramadaan teru na ba wares naa woor mooy buñ ko gisee gis ki nag mën naa am mbooloo gis ko mu kenn lant liwut wala ñaar ñu maanu gis ko loolu ba tey bu amee rek koor gi daal di sax bu fekkee ne gisuñu ko waaye weeru baraxlu am na fanweer kon su waa bis ba ca topp dañu daal di xam ni kon ci ramadaan la bokk waaye gis moom bu amoon ci ñaar fukki yaa ñeent ci baraxlu yi dutee ñu xam ne bis ba ca topp moom ramadaan la fardu siyaami faratay koor nag niyetul mooy ca guddeem ga bokk na ci faratay koor ci dogu ci fas yéene nga def ko ci guddi ga guddi gi mooy fi jant bi balaa fajara fenk bu fajar xasee fenk te yéene woon yéene ci dogu jooju rek doo mën a woor bu ca la itam dangay jàpp rek bañ a lekk a naan te fay bis booba ndax ñàkk nga ñàkkoon a ci guddi ga li ki guddi xamoo koon ba yéene kon boo ko xamee ci bëccëg bi noonu ngay def wa tarku watta ak bàyyi laal shurbihi ak bàyyi ak naanam wa aklihi akuk lekkam maanaam gannaaw boo yéenee koor gi dangay bàyyi lépp loo xam ne luy dog koor gi la yooyu nag moom la tàmbalee wàññi laal gi mu ko wax mooy jote góor ak jigéen kooku bu ko defee koor gi yàqu na bàyyi naan ak lekk itam bu naanee wala mu lekk koor gi yàqu wal xaw yi ak bàyyi wàccu maanaam bu wàccu wàccu moo xam ne moo ko tey nga xam ne moo ko luuju kon moom day yàqu bu dee wàcc moo xam ne tëyu ko nag te wanaatu ci dara a ah, su boobaa moom kon du yàqu ma isaali shay'in ànd ak àggale dara lil maa ini ba ca bàq ga min udunin bàyyi ko ci nopp aw aynin wala bët aw antin wala bakkan xad warada bëpp rot na waaw nee itam bu xasee jàpp koor gi na moytoo àggale dara ca bàq ga lu ruuy bu dee lu ruuy moom fu mën di jaare moo xam ci nopp bi la moo xam ci bët bi la moo xam ci bakkan bi la moom mu ci ginum gi ñooye moom bu fekkee dafa nekk lu ruuy mel ne ndox wala café wala yu mel noonu nga xam dafa ruuy nekkul lu wow kooku moom nee nañ bu àggee ci boli gi rek jëru ngay sart bàq ga bu àggee ci boli gi rek ñu jàpp ne koor ga dog na bu fekkee dafa nekk lu wow koŋŋ nag bu noppi buy waaw lu mel ni ab dërëm wala lu mel ni aw xeer kooku moom nee nañ bu fekkee dafa jaare ci gémmiñ gi mbaa ci bakkan bi bu demee ba ca bàq ga la koor gi door a dog waaye su agsi woon ba ci boli gi bu fexe ba xaax xaaxtandi ko yàbbi ko moom lu wow koŋ loolee kon ba tey koor gi du ko tax a dog mu ne nag waxta tuluuxi fajrihi ci waxtu fenkuk fajaram nga ilul xurubi ba ca soga maanaam nee na waxtu koor gi moom mooy la tàmbalee fa fajar fenke ba jant bi so bu jant bi xasee so sa digganteeg fajar bi fenkaat moom lépp lu daganoon ba tey dagan na ci yow mën nga koo def ndax koor gi moom mi ngi tàmbalee rek fi fajar fenke ba jant bi so wal xaqlu xel nag fi awwalihi ci ak njëlbeenam charte wutu bi sartu war la yeneen li war la mooy jamono yi fajar xam ne ci la koor gi tàmbali nga ànd sa sago waaye bu fekkee ne àndoog sa sago kon koor gi du la war hmm. bu fekkee nag léegi ci jamonoy fajar yeew woon na ba yéene gannaaw ba nag mu xam waaye lu xam moom du lépp bis bi du la ëpp ca bis ba xanaa xaaju bis ba rek mbaa lu matul xaaj ba sax moom la xam te fekk na moom yeew woon na ci njëlbeenu fajar ba yéene yéene wér-wér waaw su boobaa kon koor googu doy na waaye nag bu fekkee lépp bis ba la xam mbaa la ca ëpp moom la xam mbaa farutoon yow sax ci jamonoy fajar ba ànd yéene ju wér su boobaa kon bés boobu doonte lekkut naanut du tax koor ga doy muy faaw da koy wooraat wal yàq dina fay faaxidu foo aji ñàkk xel ma waxtaan loolu lay wax maanaam koo xam ne àndoon ak sagoom ci jamonoy fajar ga kon bés boobu na ko fay wal xay bu mbërëg mën a xatere na saw man koor maanaam li ñu wax baaxub jigéen koy wax mbërëg mbaa reegal su ko jig su ko jigéen gisee du sañ a woor koor ga araam na ci moom hmm. du ko sañ def te bu ko defee itam du wér wa taqali dana fay nag alfarada koorug farata ga inir dafa xandeem yëkkati ko na bu fekkee koor ga day koorug farata nag ba tey jigéen jee woor maanaam mbërëm mi bu fekkee ni koor ga koorug farata la te jigéen ji wóorut ngir deret yu ñu wax su boobaa kon koor ga moom dana ko fay julli ga la war a waaye kooram war na koo fay wayu korahu def na sib allam laal wa fikrun ak xalaat salima yoo xam ne mucc nañ ñoom ñaar dëban ci aada wala ci baax minal madi ci madi yu dena koo xam ne woo daa woor mu wóor ko ne nag fekkee dafa laalante wala muy xalaat ka nga xam ne moom lay seel du tax dara génn ci moom su boobaa laal laalante kooko mbaa xalaat ko dañ ko sib rek yem ci illaa ndéem xamu ci lu ko wóor nag xaruma kon mu araam maanaam bu fekkee ne nag wóoru ko ba xam bu laalanteeg muy séeri wala mu di ko xalaat dara dina génnam du génn kon day araam mu def ko su fekkee dëgër na bopp ba def ko nag bu fekkee masi moo génn kon fay rek moo ci war hmm. bu fekkee nag mani moo génn day fay ba not boole ci kafaara wa karihoo sib nañu dawxa ka xidrin mos lu mel na ki cin maanaam woor ba noppi di mos lu mel ni cin looy togg ba xam saf na xorom wala déet wala ngay tàngal kafe wala attaaya di mos ba xam saf na suukaram safut loolu sib nañ ko ndax dañuy bañ bu rëccee jàll sa koor day dokk wa hadaran ak bébant bébanti mooy wax ju amul njariñ boo wooree ko wóor dañoo sopp nga téye soo làmmiñ ci gépp wax ju amul tuyaaba nga woor ba noppi nag di wax wax joo xam ne nii amul tuyaaba xëy ndax wax ju dagan la waaye rek amul tuyaaba jooju wax moom boo dee boo wooree dañoo sib ngay wax wax ju mel noonu ne buñ ne sax nangam araamoon na nga wax ko mbaa siboon nañ ko boo wooree dañ koy gën a araamal gën koo sib ndax màggaayu koor ga xaalibu xay in aji noti wàccu wa dubaabin ak weñ moo tafarul lu ñu jéggale la nee na boo wooree nag wàcc wàcc moo xam ne tëyoo ko dafa laa rëcc rek ni ki nga siburu jekki-jekki wàccu kooku jéggale nañ ko ba tey bu fekkee weñ dafa jekki-jekki sarax la ba tey kooku ba tey jéggale nañ ko wacc bi nag bu fekkoon ne yaa ko tey nga xam ne ngaa luuju waaw yoo xam ne yaa ko génne waaw su boobaa kon faaw koor ga day yàqu nga fay ko xubaaru saanihin ak pëndub aju liggéey wa turxin ak pëndub ay yoon maanaam booy liggéey ci lu am pënd niki ngay bokk ci ñi tibb suuf walla ngay liggéey ci mbirum maçon wala yu demee noonu wala niki ngay liggéey ci ciment day am pënd wala sax nga aw ci yoon wi rek pënd bi lay sol yooyu yëpp jëgal nañ ko ci boo wooree wa siwaakun ak soccu maanaam soccu ba tey boo wooree sañ nga ko waaye def ko soccu boobu moo gën a wóor boo ko tax mu teg ci wa siwaakun akub soccu yaa bi sun wow mm-hmm. socc bu wow yaa bi suñ ji moo ci gën ndax boo ko defee socc bu tooy boo muucoo ndox mu jàll koor ga day dog kon na ko def socc bu wow isbaaxu janaabatin xëyee janaaba kazaaka naka noonee la maanaam awe amee janaaba ci guddi gi te sanguwoo ko ba fajar fenk te fekk booba mu jamonoy koor bu yàq dara ci jëmmi koor ga xanaa rek boo yeexee sangu ba julli farata ga raw la rek loolu ca ngay amee bàkkaar waaye jëmmi cangaay li moom boo ko defutoon te woori du tee koor gi moom wér kon nag niyetun jenn yéene takk fi dana doy li maa ñeel koor ga nga xam ne tataabu xuxoo ak toftaloom yejibu dana war dafa wax ne nag gépp koor goo xam ne day des koo war a tegale ni ki weeru ramadaan wala lu mel ne goo xam ne ni ki kafaarak des koo war a tegale waaw lu mel noonu moom nee na boo yéenee jenn yéene ci guddi gu njëkk rek doy na du aajowo nga yeesal yéene ji illaa in nafaahu ndara ndeem dàq na ko maanikuhu aji tereem ja lu may dangaa dem ba yàgg nag am lu tee nga tegale koor ga ni ki nga sibbiru mbaale beneen ndog ndog la boo waroo woon kon gannaaw boo tàmbaliwaat da ngay daal tàmbali guddi gu ne nga yeesal yéene ja mu di ba soppeef na taajilum gaawe li fitrin ñeel dog rafaxahu gu yëkkati na koor ga maanaam sopp nañ bu la wóorin jant bi nga daal di gaaw dog dog boobu li ci gën nag mooy nga yemale ko ci tàndarma wala ndox rek daal di gaaw julli timis bala nga faa nekk di naan kafe ka def yi fi aada wala fii ba julli gi la raw timis waxtu daa gàtt kon mën ngaa njëkk a julli ba nopp rek gannaaw boo mosee tàndarma mbaa ndox boo julli ba noppi doo a dem ci yëfi aada yi mën a toog yaatu naan kafe bu yaatu yaatu yu demee noonu kazaaka naka noonu taxiiru sufóorin yeexi xaddu tabixaxoo topp na ko xaddu dañ koo fonk lool nga ko ba noppi yeexee nga xam ne sa digganteeg nodd fajar gi day jege maanaam diggante bi daal juróom-ñetti minute mbaa fukk doy na ci loolu lañ ci gën a taam waaye lu tee nag bu genn bu xaaju bu du jotee rek waxtu xadd moom dugg na waaye nga yeexee ko ba jege fajar te aggu ci nag noonu moo ci gën ba tey nga xoolaat lee mu la waxoon ne la gépp koor gu ñu war a susali susali gu war boo xasee yéene ci njëlbeen nga rek du aajoo nga yeesali yéene ji guddi gu ne nag lam la waxoon ne la lu may dangaa dema dem ba am tegaleetoo ko ni nga am sibru wala genn wéra di ko tax wóoroo kon day aajoo guddi gu ne nga yeesal da nga cey dolli ne gannaaw ba nga amee ngàntal bañ a doon doonte sax jëloo ngànt la nga xam ne ngaa woor rek man sa bakkan daal di woor rek du tee danga amoon nga sañ-sañu bañ woor rek yeesal yéene ji moom di daal di war guddi gu ne ñàkk nga ñàkk jël sañ-sañ ba du tee guddi gu ne nga war a yeesal yéene ja man aftara ku dog alfarda kooruk farata xadaahu mu fay ko loolu tëkk tëkk la bu yaatoo yaatu maanaam gépp koor goo xam ne farata la soo ko dogee moo xam yaa ko tey moo xam téyoo ko doon dañ laa force sax tutee fay bis boobee moom war la ndax kooruk farata faaw des ko war a fay wala yësit na dolli nag kafaaratan kafaara fi ramadaana ci ramadaan in xamada ndeem tey na li ëkk li fanin ñeel lekku gimiñ aw shurbi famin wala naanu gimiñ aw lil mani wala ñeel payu génne man yu wala bi fikrin ak donte ci xalaat la dina bu dee kooru ramadan boole ci nag nga tey ko tey koo ko daal di koy dog moo xam da lekk moo xam da ngaa naan moo xam da ngaa génne man yu doon ci sax génne nga du joteeg sowukaayu sowukaayu xanaa xalaat bu yàgg la ba tax man yu ma génn wala laalante ci yaram su boobaa ne doo yem ci fay dong da nga ciy boole def kafaara kafaara alamandu boo xam ne daañu la wax léegi naka lañ koy defee aw li raf vima wala ngir fëgg la nga xam ne fëgg mooy tabaxee fon na ca koor ga fëgg wala fii ñoo koy wax fëgg waaye rafdu mooy bàyyi daa wax ni yéene ji moom ci xam nga ne ci la gi samp maanaam yéene ji mooy téye koor gi moo ko lal daal maanaam léegi nag bu yéenee woor ba nekk ba ci biir ne wëlbatiku ne wàcc naa yéene ji wax wax na ko ci làmmiñam moo xam ci xolam rek la wàccee yéene ji moo xam danay maa yéene woon yéeneetuma baa bopp ci xolam moom jàppan na koor waaye léegi wàcc na koor gi jàppatu ko waaw kooku doonte lekkul naanu tam waaye wàcc na yéene ji ci xolam rek moom jeex na koor googu yàqu na loolu nag mën naa am ci bëccëg bi la wàcc yéene ji moo xam ci guddi gi itam la ko wàcc ndax bu fekkee yéene woon na ci guddi gi gannaaw ba mu ko te yeesalaatu ko ba farfajar fenk ba tey loolu benn la ñoo bokk àtte kon saa yu fase yéene ba ba noppi moo xam ci bëccëg la moo xam ci guddi gi la wëlbati ko wàcc ko nag su boobaa bu fekkee amul fu mu ko sës a wóor moo tax boole ci bilaata aw wulin xaribin su boobaa day fay ba noppi kafaara boole waaye bu fekkee da ko sës ci sësuwaay boo xam ne nag xel nangu na ne moom ngant la su boobaa kon fay rekk ko ci war waaye du ci war a kafaara bokk na ca nag muy tukki tukki boo xam ne matul doxu wàññi tax mu defe ne kon sañ naa dog ba loolu tax koo dog ah, loolu xam nga da koo sës ci defe na rek dégam moom day tukki sañ naa baña woor mu daal di wat ci yéene ji ngir loolu lu mel noonu wala nga xam ne daa ame woon janaaba te léegi sënguwu ko ba gannaaw fajar mu daal na ne nag moom ndegam sanguwul ba gannaaw fajar rek say bu mu wàcc ndax bu waree tey itam du baax lu mel noonu moom te awulun xarib la lu mel noonu fay rek ko ci war waaye fay rek moo ko cay warwaaye waaye alamaan du ko ca war loo tax mu ne bila ta awulin ci ludul ak taawil xaribin kuy aji jege maanaam bu fekkee dafa wàcc yéene jën wóoratut mbaa bàyyi na ko daal ci xolom yéene nag moom foo ko fekk ci guddi képp lañ koy fas mënees koo fas ci waaye daal gannaaw bu ko fasee bu fekkee wëlbati ko ne wàcc ko te tegu ko ci taawil gu xel nangu maanaam gu yoon nangu waaw ah, su boobaa kon la ko kafaara boobu di war bokk na ci taawil yi nga xam ne nag yoon nangu ko koo xam ne teg na bëtam ci yi maanaam teg na ci weeru feeñ bu waxee ne gis naa ne weeru feeñ na ko moom mu daal di bañ woor ndax ndegam nee na wax naa ko te nanguñ ko rek man du ma ci worante loolu dañuy jàpp ne bu dee taawil itam taawil gu sori la du tee alamaan war ko waaye lu mel ne am na jàngoro joo xam ne daana ko dikkal ci bis sàngam mu ne nag tey kon duma woor ndax xam naa ne bis sànq bis bii ci la ma daan dikkal waaw kooku doonte dikkal na ko ca boole ca it du tee mu fay alamaan boole ci ba tey mën nga cee boole jigéen joo xam ne daa wax ne man daal tey duma woor ndax bis na tey ji ci la daa gis baax ci laa daa gis bërëg maanaam réegal kooku bu ko loolu tee woor bu ko loola teexee woor doonte sax nam ko jàppe woon noonu la amee maanaam gis na deret ja boole ca du tee mu fay ba noppi alamaan war ko ndax loolu tawil gu sori lañ ko jàppee rawante ne nag bu fekkee nam ko yaakaare woon ne tey la koy dikkal faru ko dikkal wulu baaxu def na daganal dog li dur ngir lor nee na nag bu fekkee dafa woor waaye am na lor joo xam ne